you shit Really neighbor your vibe Reality goodbye See my hurry, this is mine I'm a fucking jacket, I'm a nigga and I I'm running down ride Hey yo, rabu ma rabu ma rabu ma One, ma fi ma ma marabu marabu marabu clash na fata mi taxul mu bàyyi rab danga ma jégué mais bëgg ma sori galilé ubi na demal nga jënd kii waxal ma jégué na maytu héeral si dañuy soog taal ak ko ñu rosi flow bu dëgër ni tak der la dalul nga jaar fa tag der yow li ngay door mu ne ma dugg ni kuy door sa tak der chef amala juure gi sama wet té ma fay dina kil ku ma doon si dé janawari la dëgg bo ragalé tënn bu dëgg sama ko ñëga yëpp nii mu ne ñu bàyyi dig blind sama xawi da sama ñoo mufumu jangera wedigera kotal tamarenda khura Lapayde yushir, nyevane nyupa Tika blansi mukhavire sumay Mufumu jangera wedigera kotal tamarenda khura Somanyaka gis dudara kom talibe sandal Yeah comme talibé sandal sama que gis du dara comme talibé sandal nega yeah. comme talibé sandal Kiko Escobar esta matando toros los cantadores Kiko Escobar está matando

Gracias, gracias Jesús, por toda mi familia, gracias Jesús, gracias, gracias, gracias Jesús, para mi coraje, gracias Jesús. ndax maa rap rap rap rap. et bien sûr bien sûr Escobar version live and direct nga doon am léegi léegi oh, léegi euh, ma mel Mr Tigo mais. Mm. Euh, grand bay ma ñamal ben instrumental ben instrumental bu old school ma xool euh, rapidement ñu dugg ci bagage yi heure ben gi daw. yes sir. ayo ah ayo ah. Ah. ah di doog mu gàcce yi nigga. ya ah yep. ah Cikgu puas yang berdua ya ah ya ah yeah yo sir ñoom nee nañ du ma gis mais nag maa leen di woon yoon bi ci ko boss de blanc rap njàcc bi togg moomul yoon bi yàgg grève dox ay kilomètres kon combat bi mënu fi yem amul trêve fii dafa prétéré sama kaan bi du ma ko layem damay dund li doon comme sama laago te bon ba dafa sore looloo xel ma njàcceer xamul li doon saa yooyu gént da te du sa bët moo koy seede daf da li si bii sa jëf nice bi dañ seede njàccaari njàccaari njàccaari ko boss pour njàccaari pour ci ko bi dama tari ne prince ko tari ma dinga ba tari ba ye su prince tabal ñu bakari ba ye muru man gisuma dara xel mi ci jekk rek parce que am dara ma séminariste bo jaaro ma dara may rappel sur maga bi tan sunu nara ya bi tan sunu nara may rappel sur maga bi tan sunu nara ya bi tan sunu nara yeman yeman yeman yeman waaw mais bro naka war tranquille naka bagage yi sant yàlla bu wér. lan yi nga xam ne actuellement ñu ngi déglu sama Zik FM Thiès euh, gars yi nga xam ne tamit ñu ngi ñuy déglu si euh, travers internet bi euh, sama FM point net si àdduna wëngal këpp ak gars yi nga xam ne tamit ñu ngi suivre vidéo bi li nga xamante ni moom mooy Kadior TV. ja maa ngi bëggee gars yëpp ah cat ba cat di bëggee Thiès kaay di bëggee sama famille di bëggee waa DK di bëggee gars yëpp yi nga xamante ni ñoo nekk sama ginnaaw di mu support gars yëpp cat ba cat ngi leen di Lagos doit ko si mouvement hip hop Galsen euh, tout récemment yangi euh dernier produit dernier album euh, defoon nga point de presse ben ben fi won Europe actuellement nga moment bi en même temps tamit œuvrer côté artistique préféré album indi ñëwaat Sénégal ko tamit fi nga fa nga muy de passage nga moom mooy point de presse bi euh, depuis lors tamit yaa ngi suivre évolution ou euh, promotion ou album bi euh, tayji lan nga na mën gum comme bilan ba album bi génnee ba léegi wa bilan amna ci retour yo xamante ni c'est c'est assez positif par rapport que vente yi donc voilà ce tirage bi jeex na ngi song deuxième tirage bi xam à partir de la semaine prochaine deuxième quinzaine du mois de septembre Um, à part ça, tamit aussi voilà les tournées sur les radios et les télés, ça c'est ça se passe bien parce que maa un ci peu ba tey donc euh, link bi tamit aussi maa ngi koy gën par rapport avec artistes aussi maa ngi di bon xam dank dank. donc euh, voilà pour moi, c'est c'est assez positif jusqu'à 60 actuellement donc il y a 40 qui sont ça reste à euh, comment dire euh, à rattraper donc voilà nous avons un petit ci quoi. d'accord tey. album euh, Tyco pourquoi le choix de album euh, pourquoi mixtape wala wala EP comme ñeneen ñi koy gars yi defee mais da nga choisir génne album mu neuf titres. yow album bi li ko waral lenn la parce que au départ EP euh, e laa bëggoon def au départ EP bëggoon def. Ah, mais après bi ma xoolee li ma def ci li ma li ci def ci xaalis li ci def ci effort li ci def ci énergie donc euh, lenn rek laa mënoon def moom mooy ma rentabiliser ko mais en même temps euh, su ma koy rentabiliser genre ma delloo affaire yi fi nga xam ne foofu laa jóge muy INEFJA donc suma premier produit bon jagleel naa leen ko suma deuxième produit troisième ou quatrième lu mun a ñëw rek dina am lenn loo xam ne volet social lay doon quoi te dinañ ko ci def donc euh, c'est ça après mixte yëpp euh, voilà mënoon naa ko def et puis ma maye ko gars yi gars yi mën a kii gars yi mën a nekk ñëpp. xam et tout machin donte euh, voilà promo album moo gën a mais bon lu ko jaar moo ko quoi. yéman yéman euh, tey su du gisee tey euh, lan nga mën expliquer l'histoire si préparation album bi côté positif côté négatif si côté préparation su ma côté négatif maanaam. coono geeg yu ngi si dajeeg détail demee yëpp est-ce que album bi genn wàll yëpp niveau France nga nekkoon liggéey ko foofu yëpp après def fii rigode yi naka waar lan nga mën expliquer comme information yi nga xam ne mën nañ ko retenir si album et si préparation album li ci li ci ëpp ci ci ci biti bon Papa lay bit moo ko def man ko koy diko di lu bari bari bari donc euh, voilà mon koy def après mo yónnee mako man ma man ma prise ko au niveau de de Nancy en France donc euh, voilà après lépp bi matin nak man ci la ñëw bon après voilà en yi mon pratiquement moo ci préparation parce que j'ai j'ai contacté pas mal de labels hein. Mhm. bon genre j'ai pas contacté les labels de Thiès certes hein, mais euh, au niveau de Dakar on y a un label xam ne contacté dans l'aine mais bon nous mieux après. un euh, retour, non ci retour bon c'est favorable quoi après je me suis dit damn lii bon là mon quoi li nga euh, sama family mun nañ ma ci gunge sama ay cousin ak sama ay mbokk rek ñoo nekk sama équipe à part sama yenn bro yi nga xamante ne ñu ngi ci biir donc ñoo ñoo ma gunge ba ma actifié et puis voilà je vois que euh, li nga xamante ne nii moom laa doon séntu ak fi ma toll nii c'est la même chose quoi donc su ma demoon ci keneen euh, li nga xam ne sama family moom lañ ma moom lañ ma noonu lañ ma accompagner keneen ak keneen noonu la may accompagner quoi donc y a pas de différence d'accord si côté finance est-ce que si côté finance est-ce que yegg na ou alors... Euh, franchement, pour dire vrai, quoi. Parce que euh, déjà, je suis venu trois fois au Sénégal, rien que pour projet et Voilà, le règle les billets d'avion, euh, mhm. voilà, déplace déplacement I, bag bien business. Donc, Dame, barina. na <laughs> d' accord euh, euh, ñu ngi gis si biir album bi ah après dinaa ñëw si euh, si yeneen point incha allah. tey si biir album bi suñ si duggee lépp est ce que lépp loo xamante ne war na si album comme niveau BSDA wala SODAV détail demee noonu ole grand beeg yooyu noonu yooyu yëpp est ce que si yan support la nekk moment bi nii. si li nga xam moom album support bi genre li ko li nga xamante ne nii moom euh, moment je suis passé par, en partenariat avec euh, euh, la, maison de distribution digitale qu'on appelle Music Donc euh, j'ai eu un contrat avec, avec eux, un contrat qui dure un an. Donc voilà, pour me permettre de distribuer la chose et puis d'officialiser aussi la chose. Mhm. Donc au niveau de BSDA, je crois bien que voilà, ce qui devait être fait est déjà fait. moment gis moom mooy ñoom sen sen seen seen wàll moom voilà retour yi nga xamanteni waxna mais est-ce que tamit euh, dem nga fofu tamit euh, bay am tamit retour tamit euh, dem nga fofu si si sa œuvre pour ñu protéger ko fofu si si si si c'est mhm. déjà fait. d'accord je suis déjà parti là-bas. donc voilà nekkul ne genre comment dire côté bobu noonu moom mooy bloqué quoi. donc

après mon nekk aller retour entre Sénégal et France quoi. déjà là c'est déjà disponible au niveau de au niveau de France képp ko xamanteni ni euh, voilà nek nga fa nga beaucoup à partir de là-bas ça coûte 10 euros. par rapport à fi Il y a une petite différence parce que voilà. Hmm. envoi Ville là parce que dañ la koy euh, livrer directement sa galère. donc au niveau de. mais si côté spectacle côté spectacle yoy est-ce que tamit dañ am bon spectacle ce xamante ne euh, sa les lay wala ben spectacle xamante ci niveau INEFJA lay doon mm. euh, boo xamante ne peut-être lancement euh, euh, genre spectacle album bi lay doon ci année scolaire mais ngi ñëw détail demee non il faut faut mu am lolu il faut que mu am parce que lolu mo mën a marqué lépp certes conférence de presse bi amna lu marqué mm-hmm. mais il faut ma ma ma wone sama benen facette par rapport ak live bi nga xamante ni man mën ko def au niveau de Thiès mais bon li nga xamante ni nii fi déssé moom bari wul temps bi dafa gatt trop trop trop jamono ji parce que voilà mis à part musique bi may def damay damay damay jàng donc euh, voilà dafay xaw métti pour m'enchaîner enchaîner lépp quoi donc step by step ben par ben la koy def et puis euh, voilà mais je promets que au niveau de Thiès moo xam j'allais lay doon wala feneen lay doon. dinaa dinaa belle spectacle dinaa def spectacle. d'accord euh, dernier mobile bi la vite fait temps beeg ñu xoj. ziar gaa yëpp. yëpp dira yëpp di rappeler gaa yi ne la vue n'est pas la vie maanaam dund nekkul gis bu ñu jël lépp ñu tënk ko ci dund parce que booy gént doo gis. booy gént tey jii wax naa ko keroog nee naa Gigi. Mhm. Euh, yow sooy gént ba gént euh, Tico Boss mu def kos xam nga dugg 4-4 machin soo xëyee da nga may ne grand gént naa la démb nga def kos dugg sa 4-4 nu mu demee noonu est-ce que instant bi ngay gént yow sa bët yi ñu ngi doon xoolee. xippiwul donc euh, voilà foofu rek ko fa xoolee ne du dara du aspect du aspect benn benn la ci cinq sens yi voilà nga am sur cinq moom mooy nga sur vingt baax wala <laughs> no comment en tout cas jërëjëf euh, ñu ngi lay album bi dem frontière fu euh, album yi nga xamante ko mu tournée festival ay tournée concert ah euh, pourquoi pas de euh, niveau tournée euh, national soo vacances à yeneen li nga xamante été accompagner album en tout cas big à toi et merci beaucoup d'y remercier staff